fan lañ teg suñu tànk bi ñu ñëwee décembre 2021 dañu rencontré groupement de femmes yi femmes yi ñu rencontré ku ne expliqué ñu ci lan ngay yëngatu ñenn ñi nañu ñun ci saabu ak madaar la ñuy yëngatu te bu ñu sañoon ngeen yokk ci suñuy xam-xam ndax ñu mun chaque jour di defar saabu ak détergent ak li ngeen di wooyee madaar ndax mun ci gis suñu bopp jàppale suñu njaboot jàppale suñu borom kër yeneen groupement femmes yi nañu ñun ñi ngi yëngatu ci jus ci defar jus ñun dañu bugg ngeen jàppale ñu ci hygiène ci traçabilité ci qualité ñu mën di jàppale di jaay ci màggal gi ak ziyaar yi fi am at mi ñeneen ñi nañu ñun ñi ngi yëngatu ci céréales locales dañu bëgg tamit ñu tàggat ñu ci loolu loolu xam naa ne au mois d'août dinañ mën a dugg ci céréales locales yi dugg tamit ci gerte bi ndax xam naa ne délégué groupement yooyu tamit nit ñuy xaar soxna Maye ngi noonu di ñu taalal loxo parce que moom vraiment mi ñuy xaar ci céréales locales bi maa ngi doole di leen féliciter yéen ñi nga xam ne yéenay junniy jigéen ñi nga xam ne dañ leen tàggat te benn engagement ngeen jël en tant que jigéen mooy kuñ ci formé da ngay formé keneen que xam-xam bi il faut ngeen yaatal ko ndax ñeneen di mën a def ay jus ñeneen di mën a def ay saabu ñeneen di mën a def produit yi nga xam ne yéen mën ngeen ko ba nga xam ne la marque Mine Touba Made in Touba fu ñu dem senegal di ko gis ak ci extérieur bi maa ngi bëgg tamit félicité jigéen ñi parce que man bi ma ñëwee soxna maam xar yi équipe bi ñoom Jaynaba Rahma Maram Ndoy dañ ma wax ne jigéenu Touba yi ñu tàggat ñett ñëpp lañu gis ci ñoom jigéenu Touba yi dama bëgg ngeen déglu ma nee nañ ma ñetti qualité lañu gis ci yéen dañu gis ci yéen ak ci heure mooy ponctualité nee nañu formation bi saa yu tàmbalee yéene njëkk a am na dëkk yoo xam ne ay wax waxaat yoo xam ne bu ñuy former jigéen ñi dañu leen di wax 9 heures presque ba midi ñi ngi leen di xaar Touba jigéenu Touba yéen da ngeen daan ñëw heure nee nañu tamit que da ngeen am pas-pas da am engagement que boo leen ñëwee da di dem ba jeex am na formation yoo xam ne ci suñu fàttaliku yéen a ngi pare ay minuit te bi ngeen di pare minuit kenn gendu kenn newul damay ñibbi da ngeen toog ba seen liggéey pare donc seen engagement seen pas-pas loolu dañ leen ci dool leen ci félicité troisième qualité bi ñuy wax ne jigéen Touba am ngeen ko mooy jom ndax bi ñu tegee coopérative bi ne leen ah da ngeen di cotiser xam naa ne jigéen ñi fi nekk yëpp ñëpp joxe ngeen seen 1000 francs ñi joxe seen 1000 francs dañu yëkkati seen loxo sëñ bi foog naa ne cotisation wu bi léegi nag ñi bokk ci coopérative bu soxna May Mbacké jóg leen cotisation bi 1000 francs la ngeen bokk ci lëkkaloo jigéenu Touba yi di defar ay produits yoo xam ne di ngeen ko jaay gis ci seen bopp. di ngeen am 1 million 5 millions bëgg nañ ngeen am ko maa ngi bëgg jeexal ci ay gërëm maa ngi gërëm Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma. xëy na yéen ñi bëri xamu ko mais man ak euh, Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma ñoo bokk fu ñu jàngee ñoo bokk même université donc je sais que on a affaire à un intellectuel le remercier moom mi nga xam ne gëm na ne développement Touba ci jigéen ñi lay jaar parce que nee na jigéen ñi Touba yi ay femmes de loolu la ma njëkk a wax femmes Touba yi ay femmes de la maa ngi remercier tamit partenaires yi parce que formation bi bi ñu ko defee c'est que ñu bëri nañ ci jàpp ambassade de France jàpp na ci Free jàpp na ci fondation port autonome de Dakar jàpp na ci ONU Femmes jàpp na ci te formation yi ñëw ci céréales locales ak yi ñëw ci gerte bi ci diwlin bi yeneen partenaire tamit taxaw nañu pour jàppale ñu et je sais que monsieur le ministre Dame Diop tamit dina ci jàpp gouvernement bi dinañ ci jàpp pour vraiment ñu gën a yokk gën a gën a sakkan encore léegi nag man sama message bu ma koy jeexeel mooy da ngeen war a pare pour le màggal lu xam ngeen màggal bi ban bés la monsieur le maire wax na ko sànq nee na ngeen pare produit Mine Touba yi ku ñëw jënd am ngeen matériel am ngeen formation prochaine étape buñ fiy dellu si waat di seet seeni i seen liggéey foog naa ci màggal bi lay doon am naa tamit nag benn cadeau boo xam ne maam xari jéen lañ ko jagleel maam xari jéen bi nga xam ne sànq décoré ngeen ko ñun ONU Femmes fu ne yóbbu nañ ko fa yóbbu nañ ko Nigéria Niger Tchad Sierra Leone Libéria dëkk boo xalaat yóbbu nañ ko fa mu ñuy tàggatal ay jigéen pour ñu am loo xam ne dinañ ci gis seen bopp ñu am autonomisation donc tey ci kanamu les mille femmes de Touba yi mu formé ñun ñoo koy jox trophée bi waaw di ko félicité